dañ ko sañ ah dañ ko dañ koy def dañuy dof dof lu ñu def ñoo ko tey ok xew-xew bi tey Aïcha dañuy dem ba fële sa commune Bambilor fi ñuy wax kañek euh, li nga xamante ne moo fa xew nag lu doy waar la benn xale bu jigéen bu am 18 ans bu demoon di taxani ji sa filawoo ya waaye ba mu demee di taxani ji sa filawoo ya am na benn waay bu ko ko fekk forcé ko ba ànd ak moom violé ko ba pare daw ba ñu yàpp ko mu ci dugg si kër ga mu doon jànge ñooñu taxaw Acha am nañ dem déglu ji ki nga xamante ne mooy waajuru xale bu jigéen bi ak magam ñu expliqué fee ni mu demee bu ko defee bu ñu jël see ko yaatal incha allah. Aïcha. takka ñi yaayam la doon takka ñi. ah waa ji nag yàgg naa ko rëbb mais moom fo xamu ci dara ba mu demee filaawu muy takka ñi dem ba yàgg moom da koo fekk foofu ba mu ko fekkee foofu daanaka da koo dóor mu jël ay mel ni ay saaru eh, kii sagar buum loko oh, kii bi gémmiñ bi ba mu ko buumee jël ay ñaari baaraanam dugal ko ci biir bakken bi waaw dar ko Ah, kii kii moom bees kii yàlla def ne ñi nekk ci tool bi ñu dégg yukku bi ba ñu ñëwee léegi nag waa ji fekk waa ji dow mooy Umar Jaara moo ko doon dakk ak ak seek kiñ daan seek waaw ba ñu dowee nag bee déen mu dugg ci biir kër gi ba mu duggee ci biir kër gi léegi nag fam lañ fa fekk ñu ne du ngeen ci biir kër gi waaw ah ñu nekk fa chef du village ñëw chef du village mu ne dul ba nekkul ah génnal waa ji mu ne du ko génn fukki fukki at ak juróom-ñett la waaw ñu ne sonal lool sonal lool. commune Bambilor te ñi ko fekkee ñu ngi fii ñoom fekkee nañ ko waaw suñu ñaari témoin ñu ngi fii fekkee nañu woo nañ leen. daa moom moom sëriñ bi la àndal moom moom bi ko xoolee moom sëriñ bi la àndal waaw mais ñun moom suñu témoin ñi nga xamante ne moom ñoo moom fekk ñoo dàkk waa ji mu dugg si kër gi ñu ngi fii waaw ñoom sax ñoo ñu xamale. waa ji moo fi doon ñëw di football si ñun Tëngéej la ñun demoon parce que bi ñu demee euh, bi ñu ko yóbbee Sangalkam euh, euh, hôpital Sangalkam ñoo ñu wax dëll leen fële Mbambilor si commanda bi mu bindal leen ba pare ñi kii ma soog ko laal bi ñu demee Mbambilor si commanda bi moo ñu bindal kayit ñu yóbbu ko kayit boobu ñu yóbbu ko fële muy moomu jàll ñu hôpital fee Sangalkam mu jàll ñu fële Tëngéej mhm. bi ñu demee Tëngéej ñoom ñoo ñu bind bindal certificat médical certificat boobu moom la ñuy boolee ñu dem dëpp déposer plainte ñooñu bindal plainte bi ñu déposer plainte mais ñun moom dañuy néew doole li ñu wax néew doole dañu amul xaaj moo tax ñu def ni nii mais fi ñu war a jaar yëpp jaar nañ fa. waa ji daa dow dem Guinée. moo ko moo ko dakk moo ko wax demal demal dow nga fa moom kese sëriñ bi moom kese moo ñëwoon di témoin di témoin moom kese moo ñëw bu waa ji moom nangu nangu ñëw ñun xam nañ ko bu baax te yoroon nañ numéro am waa xam nañ ko bu baax parce que fii la doon ñëw di football xam nañ ko bu baax te yoon nañ numéro mais waa ji daa daw waa ji nangu présenté ba léegi dafa daw waaw dafa daw ba léegi nangu ñëw dafa daw waaw suñu suñu rakk bi mu ngi fii mu ngi fii mu ngi fii mu ngi fii tëdd ak métitam voilà Aïcha muy noonu dégg ngeen ki nga xamante ne mooy mag ki moo gën a expliqué li gën a leer ndax olofam moo gën a set euh, dégg nga nee na waa ji nga xam ne moo violé rakk ji ndongo la woon bu ñu nekkoon ci dëkk ba di jàng léegi nag bi mu violé rakk ji ba ñu gis ko daw dàq ji ko ba mu dugg ci kër sëriñ bi dañu dem wooyu chef de village chef de village ñëw ñu ne nañu génne waa ji ñu bañ ne duñ ko génne léegi ñoom ci lañ ko yóbboo ci yoon yóbbu yóbbu hôpital ñu def ay prélèvement yépp porté plainte ba dara desul lu ñu yóbbu plainte bi fekk na sëriñ bi nee na ndongo li dawal ndongo la nag daw na ba dégg naa mu ngi sa sous région ba sëriñ bi moom mu ñëw si euh, témoin comme waaje gisuñu ko ñu bëgg nëpp nëppal affaire bi ñu jeex mhm. léegi nag parents yi neen duñ ko nangu parce que seen doom bu jigéen la ku xam pël xam ni mu fonkee virginité mhm. ñu violé ko à son âge 17 ans 18 ans tey mu ñàkk ndawam ba pare di dund blessure yi ànd ak moom. Mhm. loolu duñ ko nangu. donc mu nekk loo xam ne lu doy waar loolu la mu ngi amee fee ci Kagnick euh, commune euh, fii Mbambilor euh, fii nga xamante ne fa la xew-xew bi amee sa filaay fa mu demoon di taxani ji Aïcha. Pape. bon bu fekkee ko violé moom boo ñu parce que viol moom de. boobu bon ñu ñu ñu recherché ko et puis bon ñu suñu jàpp. je sais pas parce que bon Sénégal daal dafa doy waar quoi parce que bon parfois da ngay yenn cas yoo xamante ne bon c'est c'est bizarre. et puis euh, man ko jigéen ki rek laa yërëm. et puis bon viol bu ak traumatisme yu mu àndal yëpp. bon yàlla wax yàlla euh, sàmm et puis bu mu revenir parce que bon man xam naa si ay bon jour il y a un je faisais un reportage bon c'est enquête la sax si affaire viole yi. Mm-hmm. Euh, mais am na ñoo xam ne jigéen ñoo xam bi ma tasanteeg ñoom ba laaj leen nee ñoom loolu duñ ko fàtte. pare aussi li si gën a pire. moom mooy parewuñu pour am jëkkër wala di génn ak ah, kenn. te pour man loolu benn poids la boo nga xamante ne bon su tegoo si yow boo du wàcc ci yow. ba ba ba ba ëllëg te loolu bon. loolu rek bu fekkee ni yow am nga humanisme moom moo war a tax ba nga xamante ne. Et eh, voilà ba ñu ñu départir aussi si viol quoi parce que bon c'est pas bien et puis traumatisme lay def si si jigéen a à quoi. donc ku ku ko def. ñu essayer jàpp ko. voilà et puis. crime la et puis bon voilà quoi bien sûr. waaw kii na. alors euh, comme traumatisme boobu ngay wax euh, am na ñu bari ñi nga xam ne euh, victime de viol moo tax ñoom bëggatuñu góor ba dañuy préférer di nekk ak ay jigéen donc loolu ak la déjà ndey sëriñ bi moom daf ko nëpp nëppal ba balaa ñuy lii mu ne ñu mu daw donc police moom dafa war a def liggéeyam ndax moom complice la avant ñuy jàpp waa ji moom dañ ko war a jàpp ci kaso bi parce que nit nga violé ko viol lekk déjà loolu ak la ak nit koo xam ne dafay daal di traumatiser wu toute sa vie donc bu ñu ko jàppee moom dina wax exactement xale bu góor bi fan la nekk hmm. kon baax dafay rejoindre li ma fi indi mooy indiscipline bi ndëpp ndëppal yeeg sex bi dafa xaw a doy waar ba léegi délit sax walla crime sax léegi dañ koy normaliser te alors loolu warul nekk imagine xale jigéen boo xamante ne moom moo war a redresser société wala war na bokk ci lii redresser société tey ñu koy te ay fitna yu mel nii kooku nan la yaree kooku est-ce que bu demee sax ba peut-être yàlla mooy dogal mu am nekkaat ci këram war a am jëkkëram nan lay amee estime ci góor déjà mu war a jur peut-être am doom bu góor mm. donc ce sont de ay causes yu bëri la yoo xamante ne dafay engendrer lu bëri ñu ñu xoolaat vraiment na la ñuy jëlee yenn matukaay yi surtout ci famille yi nag mm. waa ji bi yàgg yàgg dañ ko jàpp. ndax viol léegi 10 ans la yaakaar na 10 ans 10 ans mu nekk lu metti ay Aïcha ñu ngi koy masaw baax a baax di masaw waa commune Mbambilor yëpp beneen bi nag suivi de cas la yéen ngi fàttaliku suñu policier boobu nga xamante ne moo fi réeroon ku ñuy wax daaw Daouda Ndong mi nga xamante ne moo réeroon euh, yéen a koy fàttaliku le 2 euh, yàlla def na nag feeñ na ñu xool image yi dellusiwaat bu ko defee ñuy fàttaliku ko. mooy bu dara amee dañuy def suivi de cas moo waral fekkante ne feeñ na tam ñu indi ko ndax ñu ñu des fois ñu mhm. woote di laajte année policier bi réew la nag yooyu mhm. donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax si suivi de cas boobu Aïcha di la bu baax a baax mhm. ba vendredi incha allah. merci di jaajëfal sama bopp tamit góorgóorlu naa bu ñëw liggéey si donte soj naa maa ngi jaajëfal sama bopp merci beaucoup Ndeye. yow jàmbaar nga <laughs> jàmbaar nga roy. loolu ñëpp mënuñu ko man je peux ah, sama bopp laa xam nag. man day taaw man taaw yaay ma bàyyi man sama bopp laa wax. <laughs> ñun ay comédien la ñu xam xam lu ñu neex la ñuy wax ñun ay comédien la ñu te métti nga doo ko bàyyi mu xam nga yow xam nga yow journaliste nga professionnel nga man du ma professionnel man euh, euh, <laughs> nañ la bu baax a baax. je disais jàmbaar nga <laughs> ah, royukaay nga donc voilà yow moom macha allah boo feebaree booy raam sax da ngay ñëw toog fii. su ma la wax ma la gisul rek damay inquiété merci beaucoup Racky ça a été un plaisir. merci beaucoup Aïcha ba vendredi incha allah. ñu xaar ci mi journée bi. allah allez merci. Kina. merci beaucoup je vous donne rendez à demain incha allah. ñu daal di ñëw ci góorgóorlu. demain c'est quand même. ñëw ci mercredi. ñu ñëw ci góorgóorlu góorgóorlu la ñuy ñëw. ñu ñëw ci góorgóorlu xaw ma kañ ngay wax góorgóorlu bu normal Pape merci beaucoup. waaw merci à tous les téléspectateurs yu ñu doon seetaan si suba ba léegi. ñu sant ñëpp di gërëm à demain incha allah. à demain. sa feebaroo. bëri nga problème par merci merci a tout le monde merci à toute l'équipe matinale merci à Weuz au niveau de la régie merci beaucoup à Babacar Allo Paris pour la tenue il est joignable 77 546 15 46 waaw Weuz luy problème bi doo génnee sama tenue bi ma remercier Allo Paris ah chemise bu jongoo bi macha allah looy siisu yow luy problème bi <laughs> donc voilà 77 2 546 15 46 mu ngi nekkee Sandaga remercié leen ci kanam Sista Maria dina ñëw moom ak sa team dans la mi-journée waaye léegi léegi di ngeen am le flash d'information à 10 heures d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée yaa ngeen jëf